سفر هماني bu jéemul hôpital bu Ndamatu nungu siin bu Mbàkke Cheikh Abdou Lahad Mbàkke Gaynde Fatma jiite caravane solidarité safara ànd ceeg ay ndawi APR dem yóbbu ay xéewal ngir jàppale yooyu bërëb ca jéemul docteur Mamour Dieng di médecin chef district ba bëgg lool daal koy fësal. ak ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci centre de santé Serigne Mbacké Madina ak ci jamono ji ngeen ñëwee mu nekk waxtu wu tàng boo xam ne nit ki mënoon na xalaat dallu wala toog ba ker gi sedd mais ngeen jóg yëkkati ay teraanga yëkkati ay bernde indi ko fii ci hôpital bi ngir jàppale wa hôpital bi ci gan yi ñuy dalal ak itam jappelé malade yi fi nek kon lolu li wax sank rek c'est un geste de haute portée sociale pour ne pas dire humanitaire lu rafet la lo xamné ne ko fi njëkk def kon ñu ngi leen ci sante di leen encourager di leen remercier aussi vraiment ci lii nga xam ne indi ngeen ko fi muy ay produits d'entretien ndax ku am ku xam hôpital xam ne yittewoo na ay produits d'entretien kon lu ci waaye indi rek dugal ko ci hôpital bi rek mu ngi jàppale hôpital bi kon ñu ngi sant bu baax ci xalaat bu rafet yi ngeen am te seen kilifa seen njiit jiite ko muy monsieur le ministre pour ne pas dire Serigne Cheikh Abdou Bali nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko ci engagement am auprès des populations ak social bi muy def surtout jëmale ko ci secteur de la santé ndax atum daaw ak at yi weesu yëpp maye na fi limu ambulance boo xam ne suñ ko doon lim dinañ ci yàgg ndax bëri na poste de santé yoo xam ne moom moo leen may ambulance te may bi mu leen may may bu désintéressé la parce que mosu fa taxaw di ndamoo may gi bés ba mu leen ko joxee ci la wëlbatiku sumb leneen fas yéene ko ñor di indi kon ñu ngi koy sant bu baax di leen yónnee ci moom ngeen jotale ko suñu nuyoo ak suñu sant. délégation bi bawoo jéemul dëgmal fii nga xam ni mooy hôpital Ndamaatu yóbbu fa ay jumtukaay ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy fajkat yi ak malade yi docteur Moustapha Souran moom mi nga xam ne mooy directeur l'hôpital bi wax ne lu mel ni war nay faral di bari. Euh, honneur bi ñu defal ñëw. ci hôpital bu fekkoon ne da ñëw rek ne damay nemmeeku si fu ngeen tollu ci organisation màggal gi daf ñuy doy sëkk ndax sa taxawaay ak itam <laughs> kilifa nga suñu kilifa nga euh, loolu rek boo ko defoon daf ñu doy waaye euh, teg ci nag indi loo xam ne xëy na ci màggal gi la jëm loolu wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu rafetlu di ci bég di ci am euh, mbégte mu rëy moo xam ne maak sama collaborateurs yi ak waa hôpital bi yëpp ñoo ko ànd. Euh, ce sera un plaisir également pour que nga ñëw fii ñu def tour defal la porte ouverte nga xool ñu waxtaan itam ci suñu itte looñ ci mën a jàppale nga jàppale ci. waaye wax dëgg yàlla lii moom rafetlu nañ ko lool te bég nañ ci mbégte moo xam ne itam euh, foo ko natt weesu na ko ndax ñëw gi rek doyoon na comme ni ma ko waxee waaye. ñëw itam jàppale nit ñi loolu d' abord li muy wane ak it askan wi moo tax te bu fekkoon itam xëy na euh, da ngeen ko wajal lu yàgg ñu mën a wax ne xëy na politique a tax waaye man dama toog ba mu yàgg ñu ne ma sëñ baa fa donc vraiment day lu euh, nañ ko di ko di ci bëgg euh, di ñaan suñu borom gën leen ko man loo te ñu fekke ko ati ati at

ñu jàppale leen ba ñu mën a màggal ni ñëpp di màggale kon li def nii tey loolu moo ko sabab ñu ne kon dañuy togg defar ay bernde yóbbu ko ci hôpital yi ñi nga xamante ne bii dañoo tawat ak xëy na ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di leen jàppale eh, wut aussi yeneen bagage yoo xam ne ñi nga xam ne sunu borom da leen natt ba caabi féet leen ginnaaw itam ñu yóbbul leen ko ngir ñu yëg seen bopp en tout ñu xam ne daal bisu Sëriñ Tuubaa bi moom bisu xéewal la ndax kenn ku ne xam na ne li ñuy sëriñ dafa wax ne bis bu ñu demee ëllëg su bis bu ñëwee fañ nekk ci àjjana suñu nekk waaye dana soppi ko ba ñu xam ne tey jii kat am na lu xew kon nag bépp jafe jafe-jafe bu waaye mën a nekk ba ne ci àdduna foofu la a tàmbalee kon bis bu ñëwee kenn ku ne war ngaa yëg ne am na lu xew kon loolu moo moo sabab ñu ñu def lii te itam dafay dafay sunu warugar ñu jàppale nit ñi.

ak taxawaayam ak taxawaayam aussi am na ko ci ci dëkk bi kon aussi moom ak ak yeneen structure sanitaire yi fi nekk yëpp foog naa ne war nañ leen di gestu léeg-léeg moo tax aussi ñëw bi ñëw yëmu yemaluñ ko fii foog naa ki docteur Dieng lañ jógee jéemu te ñu ngi jëm weti Daaru Manaan foog naa ñu ngi jëm aussi kon vraiment ñu ngi ñu ngi lii daal suñu suñu suñu warugar la suñu warugar la moo tax aussi ñu ko nii di leen di leen masawu nag ndax xam ne li nga xamante ne bi aussi yéen a koy yéen a koy dund ak jafe-jafe yi nga xam ne aussi yéen a yéen a ngi koy jànkonteel kon foog naa ne ñëw ci seen wet rek waxtaan ak yéen ngeen xam ne loolu kat yëg nañ ko donte mënuñ ci dara sax foog naa dina am benn poids bu mu dindi te luñ ca man loolu nag ñu def ko lu ci keneen man loolu aussi kooko kooko def ko te damay faral di wax ne politique munta ñàkk waaye nañ koy defee aussi mooy li am solo nga moom la ñu président digal ak li mu ñu sant moo di ñu gën leen a jege di gën di waxtaan ak yéen di xam yan jafe-jafe ngeen dund ak yenn solution lañ ci mën a ndax nit ñi rek ñoo ñooñ fi bàyyi te xam nañ ni fii am na problème mu faj faju kon nag loolu waruñu leen ko bàyyee kenn ku nekk lu mu man eh, da ko caa da ko caa war a def yàlla dogal na ñu ngi tabax benn hôpital xañ na fii at at a genn wàll dina pare Fawzeni aussi ñu ngi fay defaat yeneen investissement xañ na moom itam fii at dina dina pare waaye nag diggante bi kenn ku nekk rek lu mu mën na ko na ko ci def nga xam daal kon ñu ngi ci sawet di la vraiment di di la aussi masawu ci yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel ci saafara jàngoro yi nga xam ne aussi ñu ngi koy ñu ngi koy am ndax xam nañ ne vraiment jàmbar ngeen waaye aussi nekkul loo xam ne lu lu yomb la hmm, nekkul lu lu yomb la di la encore une di la gërëm di la di la sant ci accueil bi wax naa ko aussi li ñu def nii dañoo tànn ñeenti ñeenti barab fa la ñuy dem yóbbu fa ay ay xéewal euh, li nga xam ne aussi mooy prison bi nekk Mbacké am na ay bagages yu bari yoo xam ne jënd nañ ko te ñoom itam danañ ko aajowoo fas ko fa yéene yóbbu loolu lépp aussi nag dañ koy def addi Serigne Touba mu nekk suñu participation ci fànn googu ci ci nit ñi. ministre conseiller àndoon nag ay guneem ñu leen di woowee ay jàmbaar jàmbaar yooyee defaroon ay bernde yu bare bare te takku ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñoom la seeti woon na Fallou Dieng yore seen kàddu. li doxoon ñu def ko mooy dañoo xam ni dañoo nekk ci weer boo nga xam ni weeru ngëneel la jàmbaar yi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé ma di jeunesse boo nga xam ni jeunesse bu jàmbaare lañ taxaw takku ni ñun nawi li ñu Serigne Touba defal amul benn ndaw bu ko am ndax lépp luy lor ndaw ci dëkk bi Serigne bi dàqal nañu ko kon nag dañoo am obligation ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ci dëkk bi fas yéene liggéeyal Serigne Touba ndax loolu moo ñu war ci côté yëpp nag lu jëm ci wàllum développement wàllum social ak lépp ànd ji ak la ministre Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ni ku ko xam xam ko ci sociale ku ko xam xam ko ci dimbali bërëbu fajukaay yi.

ànd ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ndax moo ngi yëngatu ci fànn yëpp tey boo xoolee étudiants yi moom c'est la seule personne bi nga xam ni moo jël appartement pour les étudiants moom c'est la seule personne boo xam ni dafay yëngatu ci wàllum développement surtout ci côté éducation bi li fi fayal ci ay étudiants ñu dem continuer seenum jàng kenn xamul lu mu toll tey loolu da koo bëgg a continuer ñoo ngi ciy lancer un appel à toute la jeunesse ñu ñëw ànd ak moom liggéeyal liggéeyal dëkk bi di lancer un appel également à toutes les jàmbaar muy les bu mag bi nga xamni de dañuy les Cheikh jambar. Mbacké Gaïndé Fatma ñuy ay jambar ñu tuddaleen les rek dëkk bi ñor la ñoo lay wo ci biir yi nga Cheikh nga ak ñun ci liggéey bi. caravane bi les ci prison bu Mbacké Serigne Cheikh Abdoullah Khat Mbacké Gaïndé Fatma waxtaan ak dalal seen xel yobul leen في كل زار وفي سفر